ci fas yéene dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. ma lay fay Abdoulaye nag euh, suba si. alhamdulilah am na ci solo. ñu fas yéene feggoog askan wi jukkil leen lu Walf Quotidien xëyee tey lumu. waaye yéen a kaay gi Walf Quotidien dafa xëyee dellu siwaat ci yi nga xam Laurent Gbagbo yëkkati na ko Laurent euh, na fi réew mi di réewum Côte d'Ivoire ci diggante 2000 euh, moom moom mi nag Laurent Gbagbo yëkkati na ay kàddoom daal joxe xalaatam ci guerre bay am fële ci Niger Euh, dal nag ci ko président Macky mu ne moom amul dara lu mu wax warul sax dem guerre ndax moom mooy ka nga xam ne dafa nekk ci réewam mu ay opposant bi tëj ci kaso euh, lépp gi moo xëy fësal leen mel ñaawlu nag taxawaayu Bassoum euh, ñaawlu nag taxawaayu ki nga xam la hmm. mooy Karim Meïssa Wade mi ci langue politique bi le yéen kaay gi nag am na benn daj boo xam daanaka moo nekk ci tànkam te mooy double nationalité bi la kaay gi daal loolu bokk na ci li nga xam ne na koo xañ bokk ci élection présidentielle yi ndax bu sukkandiku ci article 28 dañ ne képp koo xam ne war ngaa mën a nekk candidat faw nga nekk am nationalité sénégalaise kese kot noonu la ko yéen kaay gi di Walf Quotidien xëyee fësal Abdoulaye Seydina Omar Ba le mandat waaye yéen kaay gi di le mandat dafa xëyee dellu siwaat Ousmane Sonko euh, mi ne jamono ji ay naatangoom ñu ngay dox maanaam ñu ngay dox ay tànk giir ñu mën ko bàyyi mu ñibbi këram euh, jot nañoo daje xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom nag mu ngi ciy dox ay jéego euh, tax yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg a xam ndax Touba mën naa sauver soldat bi di Ousmane Sonko yéen kaay gi di le mandat ci loolu la xëyee tey ji critique lam ñu teg waaye yéen kaay gi di critique dafa xëyee dafa am critique jëmale ko Euh, ci suñu société civile bi lee nee na neexul ba neexul waaye ay bukki lañu yu euh, sàngoo deru béy euh, daanaka ñu si bari si ñoom ay politiciens encagoulés lañu dem nañu léegi finalement askanu joxe su den bopp tax yéen kaay gi te xëy fësal lu ne mel leneen itamit loo xam ne yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy kàddu yi nga xam ne ni maître Ciré Clédor Ly yëkkati na ko moom nag doon kenn ci avocat Ousmane Sonko yi ma ngay nag wax di ñaaw li tax ñu tere leen ñu gis seen client mm-hmm. te ñëpp xam nañ ne Ousmane ko jamono ji sonn lool ba tax sax ñuy sàkku ci mu joxoñ ab baaraamatum état

soleil. lu doy waar la mu am fële démb ca cité Cyprès ca Zac Mbao mhm. ab taax moo fa màbb lu ci tolloog juróomi doomu aadama ñàkk seen batan bakkan mu nekk nag mbir moo xam ne mbir mu doy waar la Sénégal yëpp yow tey jii ci gis boobu la. Euh, loolee euh, l' observateur. Euh, dem ci sànci boobu leen fa la ñuy ñàkk seen bakkan kon du ñu xëy. yéen kaay gi ne situation la ñu dund jëm fa la ci effondrement maanaam ci benn baax benn tabax goo xam ne dafa daanu démb fële ci sax mbaw mm-hmm. yéen gi ne bilan bi diis na ndax lu ci tolloog a ñàkk seen bakkan juróom-ñett jot cee jëlee ay gaañu gaañu yu metti Abdoulaye ngoog euh, leneen euh, turbine yéen moom la ñu am démb fële ci bu ñuul kooku bés bu doy waar moom la Sénégal dund démb fële ci cité Cyprès fukki Lorrafoon ak ñett lañ ci nemeeku juróom yi dañ cee jot a ñàkk seen bakkan juróom benn yi des dañoo cee jëlee ay gaañu gaañu yu metti bañ a rawal leen l'hôpital ñoom ñëpp nag ay ouvrier lañu yéen kaay gi ne xëy samp laaj bëgg a xam ana ban naataange moo ne suñu député yi euh, suñu Euh, bâtiment yi noonu la ko yéenekaay gi di la tribune xëy Ba l'info euh, la wala gën a ay euh, borom na moom digganteem ak locataire fekkente nag loolu neex na ko c'est bu ko neex aussi mu takk ay bagaasam dem noonu la ko yéenekaay gi di l'info xëy a fësale euh, Sud Quotidien waaye yéen kaay di Sud Quotidien Abdoulaye dafa xëy dellu soir ci assises yi nga xam ne ñun la soxal mm-hmm. ñun taskatu xibaar yi ab potum biir néeg la ñu war koy defal maanaam quatrième pouvoir euh, Mamadou Thior di président CORED am na ay leeral yu ma ci indi daa nga euh, ci yéen kaay di Sud Quotidien réew mi quotidien am na ci ay néegu yu bari jamono ji dafa yëngoo li ko yëngal nag bokk na ci ay soxna yoo xam ne dañ nekk léegi nag des fois dañ leen di joxoñ ab baaraamu tuuma ñoom soxna yi ne luy njig njaaga ñoom maanaam dañoo feebar te ndekete yoo borom kër ga sa boppam moo feebar waaye bu fekkente ne kër docteur dafa am ku jigéen ki la yabal kër docteur waaye ku ko moom du to du dem te pourtant des fois ñàkkum doom mën naa am ci gëj maanaam gi noonu la ko yéen di réew mi xëy fësale eh, yéen kaay di suñu làmb ne ndaw ñi bu ñu bëggee ut royukaay ci seen avenir nañu xool ku ci mel ni Mouhamed Ndao Tyson ndax boo fàttali ko la woon fële ci diwaanu Pikine finalement mu dugg ci làmb ji doon tey ji mu d'affaires yàlla tey yi daal am na lu ko defal ci wàllu wërsëg ba tax yéene kaay gi ne neexul ba neexul waaye Mouhamed Ndaw Deysan exemple de réussite la noonu la ko yéene kaay gi di sunu lamb xëy fi si Abdoulaye ma ngoog euh, Seydina Omar Ba ñu ngi lay jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri di